mbiri julit ñi ak fañ fa ñuy mujj yàlla waxoon na ñu ngi mujj aljana de ñoo ñooy texe texe moo di lan texe mooy dugg aljana mucc ci sawara mu ngi jugee ci falaaxu dégg nga muy ñoo xam ne dogu nañ ne danañ mucc ci sawara dugg aljana dappatoo fa de yàlla dog na mbugal ci ñoom fata ubbi moom يلا السورة سارة بأربع آيات أنت لايا في المؤمنين سجرين وآيتين أن يعني لايا في الكافرين تيفري القرآن يلا دي بيدي فا سورة الفاتحة يلا نكو أنت لايا تجرني أن يعني لا تيفري وثلاثة عشرة آية أكفك لا ينت في المنافقين تنافقي مرة نافق بيرمو جنا جفا جرني ينت لا يلا وقت يوم وقت يوم ne moo di aljana xeeféer yi yàlla wax si ñoom la ñaari laaya rek wane na seen ak mujj moo di sawara yàlla nañ si yàlla musal naafiqi nag yàlla wax na si ñoom fukki laaya ñett wane na seen seen mujj di moo di sawara de naafiq la coom gën a gudd su ma daa topp mu woote moom yàlla ibaadoo jaamam yi ilaa wax daaneti jëm ci wéetal ko wala imaane ak gëm bi rasul yi si yonentoom wal gëm aljana te sakk ko wan naari ñu moytu sawara de gannaaw ga yàlla woon a jaam yépp ci ñuy wetal ko te gëm yonent bi jëf-jëf ji ñuy dugal aljana te moytu sawara gannaaw loolu suma xaataba topp mu wax ak bani israila waa bani israila fii ni fi surati si saar gi suma taa topp mu andi bi diine ci fiqu diine waaw di jàngale ni ñuy jëflante ne kutiba farataal na yàlla ko ci alxisaasu fayu fil xatlaa ci rey alxorru góor bi xorri ci reye góor gannaaw loolu ci genn wàll saaru yi bu saaru yi xaajee maanaam yàlla wax naag banu israila ci genn wàllu saaru yi bu ko defee mu indiwaat fiqhu diine jàngal ñu ko rey nu ñuy faye ko ci moom loolu moo di saaru baqara de alaw saaful arbaa ñeenti melo yi في أول سورة تيكو ماس مان سارك للخلفاء أربعة نيال نا نيانت صحابة ينا قبل نيوتو ينانتبه أول أول ذكر أول بنجك ذكر تدنا هدى للمتقين نيال القرآن أجي جبلا نيال نيال قال يالا وتقوى قال يالا صفة أبي بكر صديق ملو أبو بكر صديق لا لا نيال نيال قرمكو كن كيف قرأ قال يالا رك yawmal qiyaamati yaa ngi si ron drapeau Abubakar de waso yu jannabuha danañu musal sawara soril sawara alal xaa ki gën a ragal yàlla la ji ki nga xam ne yuuti dana joxe maalu àlla lam yatazakka waaw mu ngi laablu kon yàlla moo wane ne Abubakar mooy ki gën a ragal yàlla de haadihi laay ji ñu jàng léegi nazaral wàcc na fi Abubakar ci Abubakar ittifaqan ci dëppoo borom xam-xam yi yi jublaax dégg kon yàllaa ko seedeel ki gën ragal yàlla ragal yàlla meram la yàlla tudd na gannaaw ragal yàlla ne alladina yuminuuna bil xay bi imaanu gëm bil xay ci aji faddu sifatu omar ibnul xataab melo omar ibnul xataab radiallahu anhu waar daa wala de gëm loo gisut muy gëm xay melo omar la radiallahu taala yàlla mu kawe mi eh, gërëm ko anu ci moom de yow ma aslama keroog ba mu jébbaloo moom Omar yow ma aslama Omar keroog ba Omar jébbaloo nasala wàcc na ala rasuli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa Omar te fekk Omar waa yuslim mu ngi jébbalu yàlla ne ko yaa yoon nabiyu ee yow yonent bi xasbuka doy na la allah yàlla waman yàlla doy na ña nga xam ne itab waman yàlla doy na ka nga xam ne itabaako topp na la minal muminina ci way gëm yi wala boog waman yàlla doy na ña nga xam ne itabaako topp na la bi mu ñu bokk ci de keroog ba yàlla dug duggee keroog ba Omar ibn Xataab duggee ci lislaam keroog la laay ji kon moom yàllaa ko séeréel gëm yàlla alimaanu gëm yàlla sifatu Omar melo Omar la rek képp yàlla rek yomal xiyaamati yaa ngi si doon drapeau Omar yàlla ne wa yuqimoon jubal asalaatu julli haasi lii mu di jubal julli sifatu Ousmane melo Ousmane radiyallahu anhu waaw yàlla ne amoon woo ka nga xam ne xaalis naa ji taxaw la ana léegi ci xaaji guddi wala ci wàlli guddi gi saajidan bi mu aji sujoot wa qaayiman bi mu aji taxaw yaxdaru ma ngay moytu alaaxirata ah mbugal ma alaaxira de waaw haadi laa ji nasara wàcc na fi Usmaan ci Usmaan ibnu Affaan mi nga xam ne dafay naafile guddi di jaamu boromam rek laa wax de guddi gu nekk rek waaw dana witare alquran ba alquran jeex mu jàng ko si ab mu di witar kaana nekkoon yaqumu di naafile leelu guddi gi yëpp bil quran ci kaamil bi lépp te moo di witaram de waaw kon képp kuy julli kat rek yawmal xiyaamati la ngi si doon drapeau wu Ousmane wa yunfiquuna dañuy dina leen mimmaa razaqnaahum ci liñ leen wërsëgal dundale melo imam aliin la haadi dundale gi sifatu aliin ibnu abi talib melo aliin ibnu abi talib la de karama laa wajahu yàlla te dal karama bu musus joodal xiram istaajara lu yéene nafsoo boom fii bustaani ci toolu yahud wasalla mu yendu nag aamilan daaji liggéey xataa ujira bañ fay ko bi arbaati daraay ma ñeenti dërëm te sadaqa saraka na bi diraamin ci dërëm fil malay ci mbooroo wata sadaqa mu saraka bi diraamin ci dërëm siran ci nëbbu wata sadaqa mu saraka bi diraamin ci dërëm laylan guddi wata sadaqa mu saraka bi diraamin ci dërëm naaran bëccëg de waaw kenn du moom Ali ibn Abi Talib dafa doon liggéey liggéeyal benn yahud ci benn tool bu ko defee ñu fay ko ñeenti dërëm mu saraxe benn bi mbalo mbooloo benn bi ci nëbbu saraxe benn bi la guddi saraxe benn bi bëccëg de yàlla wàccee laaya ci moom alladina yunfiquna amwaalahum bi leeli wan nahaari sirran wa alaaniyatan ñi nga xam ne ñu ngi dundale seen alal si guddi ak bëccëg ci lu nëbboog lu feeñ kon dundale melo aliin la te kat moo gënoon a ñàkk ci saxaaba yi kon dundale de dundaleel ci li nga am rek yàlla jox la lamam anfiq maa fil jaybi yatika maa fil xaybi génnee li nekk ci poos bi li nekk ci pee bi yàlla bi wàcc le alin faaqu dundale sifatu alin melo alin la karaman laaw yàlla te dal na taala kawane wajoo kanamam fa kullu man tasafa képp ku melo bi hadi sifaat si yéle melo foofu moom taata raayaati haawlaayi mu ngi ci ron drapeau gaa ñi yawmal qiyaamati keroog bis ci maanaam ku melo ragal yàlla yaa ngi ci ron drapeau Abubakar ni Siddiq ku melo gëm yàlla rek yaa ngi ci drapeau Omar ibnul Xattaab ku meloo julli yaa ngi ci drapeau Usmaan ibnu Affaan ku meloo dundale yaa ngi ci drapeau Ali ibn Abi Talib waaye ñoom ñëpp nag ñu ngi ci ron drapeau yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de wax na ne aadama bëgg bëgg ki ko faree sama ron drapeau la ñu nekk yawmal qiyaamati wa infaqu dundale nag yasiru dafa yokk rek fi maali am ci àlalu jaam ci wala in xusu te du wàññi mi ci alal ji dara riba dafa niru lu yokk alal fekk dafay wàññi alal dégg nga mu ngi mel ne rek kuy joxe alal ju baax ñu di ko jox foobe bu joxe benn ñu fukk mu joxe ñaar ñu ñaar fukk mu joxe alalam ba mu jeex dese ay foobee rek yoon teg ko nag mu ñàkk alalam ñàkk fee foobee yañ ko joxoon loolu la riba mel xam nga ne kuy jël foobee xam ci lu bari boo joxee cinquante mille jox la un million da nga yaakaar ne yaa ngi am lu bari dafa mel ni yaa ngi yokk fekk yaa ngi wàññi sa boo xoolee ci zahar bi ni mu feeñee da mel ni ku yokk sa waaye dëgg-dëgg yaa ngi sa saala rek laa wax de waa ndax foo béyi problème rek la lay indil te sa ji nga am nag boo ko liggéeyoon mën naa jur lu toll noonu saraxa dafa niru li wàññi alal waaye dafa yokk alal mu ngi mel ni rek nga jël sa alal dem dégg nga jënd si marchandise bu ko defee yoroo dara sa poos lépp dem na waaye ñàkkut ndax marchandise maa ngi ñëw soo ko jaayee mu jural la li ëpp la ko jëndee woon bu yàggee nga am alal jeex mboolem alal joo saraxe rek yàlla ma ngi la ko dencal dana la ko fulal jox la lu ëpp la nga joxe woon kon ñàkkoo de yàq daal mooy nga jël alal def ko ci lu dul yàlla waaye boo joxoon ay milliards ci yoonu yàlla ba léegi ñàkkoo yàqoo it yonentu nee na maa talaat musut feeñ samsun jant illaa wobi jan ba tey haa lu may nekk na ci ñaari wàll jant yooyu malakaani ñaari malaka ahaduma kenn ki ci ñoom ñaar yaqulu ma ngay wax naan allahuma yow bur yàlla anti yàlla nga jox mun fiqan aji dundale alalam xalafan ak huutal wala axaru keneen ke yaqul mu ngay wax naan allahuma yow buur yàlla aati yàlla nga jox mum si kan aji te yàllam talafan ak sànkuk alal ñaari malaaka yàlla daf koy nangu saa yu jant bi fenkee ñaari malaaka ngi feeñ wàcc kenn ki naan yàlla kii dundale yàlla nga ko remplacer lam joxe keneen ki naan yàlla ki nga na ba joxe yàlla nga yàq alalam kon dundale du yàq alal yokka dana ñettali anaam dana ab jaam mene baadi laayi ci jaamu talaba sàkku na min nabin ci ab yonantu mene anbiyaay ci yonanti an yadoo mu an yadoo mu allah yàlla law ñeel ko an yajida mu am risqan wërsëg waaseen baaji yaatu dafa am benn jaam ci jaamu yàlla dafa mos a sàkku ci ab yonantu ko ñaanal ma yàlla wërsëg wu yaatu fadaa mu daal di annabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam allah yàlla tabaraka ba nii wa taala kawe de fa sajaabu mu nangu allahu yàlla duwaaw ñaan ak yonentu ga fa qaala mu daal wax moom yàlla lahu ñeen yonentu bi ko axbir xibaaral abdi sama jaam annii ne man xadaytu jeexal naa umrahu dundam nisfayni ñaari xaaj nisfan genn wàllu dundam yakunu dana nekk faqiran daaji ñàkk wanis fan genn wàllu ga yakun daa nekk xan yeen daaji riis yaxtaaru na tànn ayuhuma bu mu ci ñaar yooyu abdaw moo gën a moom moo dana commencé abdaw laay commencé la ko na tànn ban laay commencé ak moom maanaam waaji bam ne yonent bi ñaanal ma yàlla wërsëgu yaatu yonent ba dafa ñaan yàlla yàlla nangu ñaan ga ba pare wax yonent ba ne ko waxal sama jaam bi ne ko dundam xaaj naa ko ñaari xaaj genn wàll gi dafay ñàkk genn wàll gi dafay am nataan nag fan laay commencé ak moom ah fadaamu daal di xool zalika nabi boobu la yonentu sallallahu alayhi wa sallam yàlla ko yàlla dole xool te musal ko arajula góor ga faax barawu mu xibaar ko li yàlla wax yonent bi woo góor ga ne ko yàlla kat lii la wax sa genn wàllu dund nga ñàkk genn wàllu dund nga am xoolal booy commencé waaye ne ma laaj sama jabar fa shawara mu daal di diisoog zawjatoo jabaram moo tax jabar ju baax léeg-léegi mu jariñ jëkkëram bul xeeb benn xalaat waaye daal léeg-léegi mu lor jëkkër jële jabar ju baax daal mooy jariñ jigéen ju bon nag dana lore waaye bu baaxee moom ay xalaatam mën na laa jariñ de fa xaalat jigéen ji ne qul waxal la woon ñal ko ne ko yaati kana dikk arisku wërsëg alwaasimi baaji yaatu alaana léegi waa ji dem ci jabar ji ne ko ah lii la yàlla wax kat genn wàll du ñu am genn wàll du ñu ñàkk nu ñuy def mu ne ko ne wërsëgu ñëw léegi wërsëgu yaatu bi na ñëw léegi rek bu doon keneen mu ne ah yëfu jigéen rek bëgg àdduna rek ko jàpp waaye waa ji xam na jabaram xaala wax na laa ñeel jigéen ji arajulu góor gi góor gi ne ko alfaqru ñàkk baanal xinaa gannaaw koom sax bu jafe na ji den lool ah am ba pare daal di ñàkk métti na de est-ce que duñ mujjee am rek xaalat ndaw si wax la wu ñeel jëkkër ji ndaw si ne ko laatu xaalif nii ngel bul wuteeg man utlub sàkkul alxinaa koomalaan léegi faqat dong demal rek ne ko na xaalis bi ñëw ah jëkkër ji tegul ci baat faata mu ñëw moom jëkkër ji li zaalika nabi ñeel boobu la yonantu mu dikkal yonantu ba wa qaala la mu ne ko yaati nii na ma dikkee alxinaa koomalaan léegi mu ne ko na xaalis bi ñëw ne wërsëgu sa faataaw mu daal ko dikkal xinaa koom fa xaaral mu daal di wax loo ñeel ko maraatu ndaw si jigéen dina ko isa xutta boo ñëwee saw ban yére li naf sa bopp fa tasa daq na nga saraxe bi saw bin siire bu mel noonu ala miskin ci miskin wasa sarate boo jëndee taamaka sa ñam fa sari jëndal misloo ñam mu mel noonu saraxanan sarax ko ala miskin ci miskin wasa banay te boo tabaxee daaran kër fajaal defal mislaa kër gu mel noonu saraxatan mu rib sarax lil fuqaraa ñeel way ñàkk yi way sa sayata boo jëndee daabatan daaba kazaalika naka noonu defal loolu jëndal daaba jox miskin yi kul la maa faal te lépp loo def ifaal defal mis loolu toll noonu lil miskin ñeel miskin yi ba koom nga ñëwee nag ndaw si na ko loo defal sa boobu defal ko miskin yi fasaara mu mujj nag yaamanu di jëfee bi haza ci lii nga xam ne moom la ko jabaram digal waye zaalu muy dooleeku maayen doole ma am caalal xataa ma daa ba mu jeex umri gën wàllu dundam te ñàkkut aw xaa mu daal di allah yàlla ila nabi jëm si yonent bi ne ko inni naka man xadaytu jeexal naa umra fulaanin dundu diw nisfu wala boog xadaytu dogaloon naa umra ga miskina muy aji ñàkk wa nisfu genn wàll ga nag damaa dogaloon xaniyan muy aji riis walakin waaye nag wajatu fekk naa ko shaakiran muy aji sant yàlla fa xadaytu ma jeexal umra dundam kullahu lépp غني يلمو ادريس لغي دندم يب فهم ام لا يفتقد نياك تابدا بفور لا واخ دي فلي هذا لي مو تخ ني الفاق دندل لا ينقص دواني من رزق تي ورسك دارا دي دافا يوك ورسك راك وا دوك واني يقول ما هو الرسول ينتبي صلى الله عليه وسلم نالا كل سلاما ورنا بيبتر من ابن ادم شي دوما ادم كل يوم بسمو نيك صرخه صرخه تير بو نيك شي ورنا صرخه والإنسان دوم عرما في نكنة مؤمن المفاسد تأيشر عدد أيام سنة لي فنو أدي فنو أدي أدمي فن ياترا سلاس مئات مئة فن فن وخمسة أجروم وستة أجروم بين فكو جزان تقاج كون دوم عرما من أجروم يتتمي ريشر أجروم بين فكو أجروم ين أجروم بين كل جزين بيب قاج من هذه الأجتاج إلى yajibu dana war aleyka ci yow an tuuxaje nga ko sadaqatan saraxe kul yamin bépp bis dégg bis bu nekk rek war ngaa saraxeel sa cër yooyu cër bu nekk kon bis bu nekk war ngaa génn ñetti téeméeri sarax ak juróom benn fukk ak juróom xaaloo saxaabe ne yaa rasulullah yow yonent yàlla man yutiqu haada ana ku man bis bu nekk nga génn lu toll nii si sarax ku ko man xaala yonentu amrun digle bi maarufin ci lu baax sadaqatun sarax la wa salaatu rakatayni julli ñaari rakka sadaqatun sarax la wa tasaa nga dox ma aqiika ànd sa mbokk fi aajati ci aajoom xadayta faj nga aajoom awalam taqdi wala fajoo aajoom sadaqatun sarax la way di xaalu suróori nga dugal mbégte ci xolu julit ñi kookit sarax la de kullu haada yi yëpp sadaqaatun ay sarax la yu tamit mu dana mottali allah yàlla biyaa ci yooyu tilka sadaqaat yooyu la sarax boo bëggee sarax lu toll noonu di leen lu baax sarax la ñaar rakka sarax sa mbokk am aajo nga dimbali ko ci aajo bi faju daam fajuwut saraxe fexe ba sa mbokkam julit beeg sarax la kon yooyu ci la yàlla mottalee sarax yooyu de wax nañ ne nag ñaari rakkaay yoor yoor soo ko jullee sa cër yëpp sarax nañ wecc na sarax yooyu yëpp xaar ba diisee rek nga jàpp julli ñaar rakk sa cër yëpp sarax nañ de ñaar rakk yooyu boo koy julli balaa ngaa dee rek wax de waaw xam nga ne yàlla dana defal teraanga de ndax bis bu nekk sa cër yëpp sarax na de te जिन्ने दूर जगह लुमाई लक ना गुरे जिन्ने दी जगह दे लक कौन बो खार बे जिन्ने जापू लंगे फाजू फ़ैखल दी जुनी न्यार रखो ना जिन्ने दूर जापू कौन सारा खंगोगु लोम सोला यूरुं तू आहन ने दवे फार न्याव टेवी मम सारा देंगा ते न्याव टेव न्याय वरल नखी दोमार मल्लु को मना दल रख ñaawteefam moo tax bakaram xataa dégg bu la jam sa bakkaar la kon boo saraxee rek am jàmm naqar yi ñu xam yépp suñuy bakkaar rek la laa wax waaye bu ñuy saraxe nag ñaawteef bi faaru te xam ngeen ne bu ñaawteef bi faaroo naqar yi sori ñu fitna yi sori ñu nekk ci jàmm moo tax buñ ne la sa cër yi bu nekk war naa sarax ndax cër woowu def na déet te bépp cër mu dem bàkkaar rek xeewoo na mbugal boo saraxee nag mucc ci jafe-jafe yooyu ak finne yooyu bul dem nag bu xaabi bu xaabi bi naan la saraxel tànk gélem ak bakkanam ganaar maanaam dama misaal yooyu ngir lu ñàkk solo saraxel lu ñàkk solo jëlal sondeel ak nangami bekk suukar ak nga def ko ci yoon ak loolu du sarax laa wax génneel alal joo xam ne bëgg nga ko nga joxe ko te yàlla tax rek mu faar say bakkaar su faaree say bakkaar mbugal mi naroon na ñëw rek fànq xam problème kay war a xam war a xam saraxe loolu kay ku ne xam na ne sunna la ku ko bañit dangaa déggut sunna ndax sarax dafay faar bakkaar te bakkaar bu demee rek ñaawtee fi dem kon su ngeen amee jafe-jafe saraxe leen rek ndax ngeen nekk ci xéwal de waaye dee ko dëkkee yow balaa jafe-jafe ñëw ndax nga sax ci xéwal allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim allahumma yow bur yàlla salli yàlla nga doole xéwal ala sayyidina muhammad suñu sang muhammad waaw wa sallim تواو تنغ دولي كو مسلي اللهم يوم يالا صلي يالا دولي قبرا سيدنا محمد نشي سانغ محمد الفاتح كي اجو بي لما بنت نيال بنت يغا خمنا اغلق تجون نكو ولا لما نيال حمد يغا خمنا اغلق تجون نكو والخاتم كي اجي تج لما نيال مبور يغا خمنا سبق جيتون lépp dajaar na ci ci moom wala boog wal xaatim yi kaa ji tëj limaa ñeel yonent yi nga xam ne sabaqa jitoon na de naasiril xaqin kay dimbale dëgg bi làq ci dëgg de naasiri làq kay dimbale shariatu bi làq ci tariqatu rek laa wax de naasiri làq kay dimbale nu bootu bi làq ci wilaayatu wala di kay ji jubale ila siraati ka jëm sa yoon wal mustaqimi bàyyi ji jub rek laa wax de kooku yonent bi nasalu ñu ngi ñaanal laa tabaraka ba nuyu wa taala kawana an yarzuqana yàlla ñu yàlla wërsëgal wa yaakum yàlla ne yàlla wërsëgal famaadal kamam tadaw comme nun ko commencé naa ñaan ñun bi jaa rasulullahi ci daraja yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam waa yàlla na yàlla bindi fi diwaani saada ci diwaanu ci mbooroom way texeya fi duniya ci àdduna wala axira ci alaxira allahuma yow bu yàlla sal yàlla nga dool xewala seen naa suñu sang Mahamad Mahamad wasalim te nga doole ñu musal bañ commencé ba léegi rek ñu ngi door a xeggal dars bi nga xam ne ni bàyyi moom la njëkk firi lii lépp li ñu wax yëpp moom benn dars la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 dégg nga yàlla dogal na ne xéeféer la ñu doon nga waat leen ak nga ñàkk leen ak waat moo yem ci ñoom duñ gëm lama zakara ba mu tuddee moom yàlla aw saafal xusuus yi meloy ñem tànn mi ne baa di ci jaamam yi woo safoo mu melal leen bi tilka aw saaf ci la melo mooy melo yu jàngoon wa zakara mu tudd masirom seen mujj ar dafoo tofal na ca bi sifati aadaay ci melo noonam yi ba yàlla tuddee melo soppam yi def cee teg melo noonam yi ذكرت ابن أربع آيات ينتي الآية في صفة المؤمنين تملو جرني وآيتين متلون يعني الآية في صفة الكافرين تملو هفرين وصلاة صلاة آية متلو فك الآية نيت في صفة المنافقين تملو نافقين نين الذين نكا غاني قمنا كفروا ويدنا نكوك مولي ملو هفرين لن مولي ودي الكفر ودي لغة تي لانغو عرب التغطية مولي مور وستر أغنبو ndax ku weddi kay xolam nëbbu na ba mu fàtte lay cosaan lam doon dund ci cosaan bu bu xolam muuruutoon du weddi de bu fi istilaay chariatul islam yi bu dee ci jëfandikoo chariat islam weddi mooy lan mooy inkaaru maa weddi la nga xam ne sabata sax na ma jiwu nabi andig yonent bi sallallahu alayhi bi ci loolu daruratan lu mënul luñ mënul tamuy luñ mënul ñàkk xam lépp loo xam ne dafa fés leer naññ ne yonent bi moo ko andi ku ko weddi rek da ngaa gëmut xeefeer nga ni ki julli al kaafiru aji weddi fil quraan ci al quraan ala arbaati aqsaami nekk na si ñeenti xaaj kaafirun aji weddi naqidul mumin mu te mooy safaanam ku gëm yàlla kooku la yàlla wax ne inna lazina naka gaa nga xam ne kafaroo weddi nañ wasa dootañ fekk an sabilillahi ci yoon yàlla kooku moom mooy ku gëmut wa kaafirun léeg-léeg alquran wax aji weddi bi maanaam jaahidi ku diŋat maanaam xam dara ba pare di ko diŋat loolu it la waaye boobu nekkul ne da ngaa gëmut da weddi maanaam da ngaa diŋat waaye am na loo xam nit boo ko diŋatee rek génn ci lislaam moom la yàlla wane ne walillaahi war na ñeel yàlla ala naasi ci kaw nit ñi hajjul bayt ak kaaba ga man istataa ko attan ilay jëm ci kaaba ga sabilan ab yoon mooy ko am yoon wu rek aj war na la wa man kafara ku weddi war ak aj fay na laa naka yàlla ganiyun aji doylu la ma anil alamina walis mi ndeefi foofu wa man jahaada ku weddi war ak aj firi na mu ci ku weddi yàlla ku weddi wa man jahaada ku weddi wujubal aj war ak de waka waaye nag ku weddi aj rek xeeféer la moom ndax lu nit xamadi xamadi xam ne aj moom yonentoo ko andi wa kaafirun am na xeeféer goo xam ne mooy naqiidu shaakiri safaanab aji sant léegi-léegi alquran wax kaafir fekk namul ci wedd yàlla waaye ñàkk sant la ci namul ni ngi wax gum woone uskuru lii sant leen ma wala takfuruni bu leen ma weddi maanaam bu leen ma ñàkk sant de wa kaafirun léegi-léegi alquran wax aji weddi bi maanaam mutabari mu yore maanaa dañtalu maanaam set ci moom moom lay wane suma yomal qiyaamati topp yomal qiyaamati yakfuru dana dañtalu bandukum ñenn ñi bi baandi ci waaye naanu dina rëbb baadukum ñenn ñi baada ñenn ñi de yomal qiyaamati xeveer yi darañ waaw ñenn ñi darañ dañtalu ci ñenn ñi sang yiñ doon jaamul di leen topp darañ dañtalu ci ñeneen doon jaamu naan leen jotewuñ dara ay yeta barawu dana dañtalu baadukum ñenn ñi min baadin ci ñenn ñenn ñi de kufru foofu weddi googu dañtalu lay firi wal kufru weddi nag gi nga xam ne mooy weddi yàlla an waawoon ay xaaj la ñeenti xaaj ñeenti xaaj yu weddi yàlla mu am comme ni nga xamee ne baat bi ñëw na ci alquran ci ñeenti façon kufrul mutarif weddi ki xam xóor nel na yàlla xam na ba am na ba pare nga weddi ko rek ngi teg soxor mooy man arafa ku xam wujudul xaq am ak yàlla tabaraka barni wa taala kawana wa kafara mu weddi bii ci yàlla na ci làmbañam rek ku kufri iblis nekk weddig iblis gëm na de ci xolam waaye weddi nag ci làmmañam wa kufri yahudi ak weddig yahudi yi xam nañ yonent bi xam nañ ne dëgg la waaye ñu weddi ko seen làmmañ rek ngi teg xañaan moom la alquran wa falammaa jaa'ahum ba mu leen dikkalee maa arafu lañ xam kafaroo wedd nañu bii ci moom de wa kufrun weddi goo xam ne bi maanaa nafil baari beneen façon weddi gi mooy dàq xam ak yàlla gi mutlaqan nu mën a demee kooku moom daf na yàlla xamul rek ci dara moom mooy man koo xam ne laa yaarifu xamul wujudu am ak yàlla gi tabaaraka bëri na wa taala kawe ka jullil kufaari ni ki li ëpp ci yéeféeri ñoom xamuñ dara ñoom ñu weddi rek waaw koo koy weddi ñaareel gi kufrun ak weddi goo xam ne saay boo boromam yaariful xaq xam na dëgg de waaye walam yaxtarif nanguwut bi ci moom bi lisaani ci làmmañam wala mi ta dayan diinoowut bil xaq ci dëgg wute naag yahood yi yahood yi xam nañ ne dégg nga yonent bi dëgg seen xol waaye ñu weddi ko seen làmmañ bii nag moom mooy xam nga ne dëgg la sa xol ba pare sa làmmañ sax dëggal nga ko ci waaye nag charte yi tax nga dugg ci lislaam moom nga bañ a def jàppoo yi lislaam muy sa diine julli woo hooroo defoo ci dara yaa ngi jàpp daal diine chrétien muy sa diine eh, jeneen diine muy sa diine ànd ak ne dëggal nga lislaam sa xol sa làmmañ di ko dimbale mën nga koo ñàkk dimbale it waaye daal boo dëggalee lislaam sa wax ko salaam mañ xam ne dëgg la waaye jàppoo lislaam muy sa diine beneen diine nga diine oo li lislaam di santaane defoo ko dégg nga tuddoo ñaari baat seede yi ba léegi xeefeer nga kooku mooy ki nga xam ne ne yaarif raq xam na dëgg wala mu yaa tarif waaye nangu wut bi ci moom bi lisaani ci laa mu ñoom di la wax na ko waaye waxul lu koy dugal ci lislaam wala muy tëdd yéen te diinoowul bil xaq ci dëgg mooy jëfeewut ponk lislaam yi dara kama waqaa kam nam tàbbee li abi taalib am ñeel abu taalib yaqul ma ngay wax moom abu taalib ne wala qad alimtu wallahi xam naa bi anna diina muhammadin ne diine muhammad min xayri adyaanil bariyati mu ngi bokk ci diine ji gën ci diine yi mindee fii diinan ci mu ne wallahi xam naa ne diine muhammad moo gën ci mboolem diine mindee fi ko kay wax wax na ko ci làmmañam nangu na ci xolam waaye lu tax ñu jàpp ne nanguwut ci làmmañam mooy nanguwut a tudd ñaari baatu seede yi waaw te jëfewul islam mu dib diine mu dib diineem xeefeer googu xeefeer la lu muy xoyof xoyof xeefeer la borom du génn safara ba mukk de zakara tudd na haada lii bi lisaani ci làmmañam wa amana gëm na bii ci li mu bi xal bii ci waaye nag la méta dëyeen jàpput jàpp diine bi lislaam yi ci lislaam de diine wu de fasaara loolu moo tax mu mujj kaafiran di éveer kon tudd na ñetti kéeféer ko xam ci xolam wedd ci làmmañam dina bu rek comme yahud yeeg iblis ku xam ci xolam dëggal ci làmmañam waaye jëfu yahud lislaam muy diineem te tuddul ñaari baat seede yi beneen diine daal la jàpp waaye xam na ne lii dëgg la ba wax ci làmmañam comme Abu Talib ak ku xamul dara moom daal di weddi ci xolam ak làmmañam lépp ci yéeféer yi ñeenteelu kéeféer bi mooy wa kufru nifaax ak weddi naafiq mooy contraire yahud yi naafiq moom ak xara saxal lañ bi lisaani seen làmmañ waan karam wedd bi xal bi ci xol de naafiq nangu na ci làmmañam waaye weddi na ci xolam wuuteeg yahud ñoom gëm nañ seen xol weddi seen làmmañ ñoom ñëpp xéeféer lañ kon naafiq xéeféer la wal kufru xéeféer nag kama qaddamnaa niñ ko jiitalee inkaaru maa sabata mooy weddi la sax na ityaanu muhammadin andik muhammad sallallahu alayhi wa sallam bii ci moom daruratan muy lu muy lu ne fàng lu ne fàng kenn du ko jeex laa wax weddi daal mooy weddi loo xam ne hóor na ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko andi tawhidu laay wéetal yàlla tabaraka ba nii wa taala kawe na ku ko weddi rek xeefeer nga ndax dangaa gëmut wóor na ne yonentoo ko andi iqaamu salawaati saxal julli ku ko weddi xeefeer la ndax danga ndax yonent doo ko rek si ama rek siyaama ramadaan war weer koor wujubu zakaat war ak asaka fi amwaali ci alal yi alhajju aj albaasu dekki waaw yooyu yëpp xam ngeen ne yonent doo andi ku ci weddi benn dangaa gëmu rek xeebeer la amul ku jàngul sax xam na ko fa kullu maa lépp loo xam ne sabata sax na itiyaanu nabi ndig yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci moom daruratan muy muy muy lu ne fàng fayin kaaroo weddi ko kooku kufrun weddi yàlla la amma maa waaye loo xam ne laa yorafu duñ xam idyaanu nabi andil yonent bi bii ci moom illaa bi tafakkuri lu mooy ci xalaat wa tadqiqi ak sewal dégg fa zalika loolu man ankaro ku ko weddi laa yu kafaru duñ ko xeferloo loo xam ni nag balaa ngaa xam ne yonentoo ko andem déet foo nga débat ci xóotal ci waxtaan xalaat ci xool yi lay yu ne yooyu moom ku ko weddi duñ wax ne xefer nga ndax yooyu mën na raan na bu moo tax nga weddi ko waaye loo xam ne leer na ne mel ni jant nga ne xamut da ngaa rek de ku jàkkaarloo jant ba pare jant bi nekkul fi xamul lenn loo koy wax ñaar yooyu bokkuñ kon masala yu xóot yi yi nga xam ne dafa tegtal moom ku ko weddi kenn du la xeeverloo yu leer nañ ñi nag lislaam andi ko muy lu war ku ko weddi xeever la mu ngi wax nag loo xam ne borom xam-xam ak ñëpp war nañ se xóotal seen ak dégg ngir moytuloo nit ñi ndax nit léeg-léegi dana dugg ci xeeweer rek te du ko xam wal xisaalu lati jikko yi nga xam ne zakara tudd na ko alonu maamu borom xam-xam yi wa jaaloo ñu def ko kufran mu di xeeweer ka shaddi zunnaar ni ki takk zunnaar wal xiyaar ak seen turëb fay noo na ko zunnaar ak seen turëb yi takk alaamatu kufrin man na gaay xeeweer la de lay sa kufran du xeeweer bi naf ci ci boppam du weddi du jëmmi weddi waaye nag mandargaay weddi la waaye fa kullu man yaa képp kuñ gis yasuddu muy naar zunaara zunaar najjimu danañu njortu an ne moom lay si nekku bi mu nin diggam yàlla lan nabi ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naa tere na anu si takk zunaar walay sa nekkul fii ci moom shawatun bànneex kazinaa ni ki njaalo wa shurbil xamri ak naan sàngara haasi yi naa tere na sharu sharia naa moom walakin waaye nag fiyaa nekk na ci xasun cër li nafsi ñeel bakkan wa man ataaku di kee biaa ci moom falay sa nekkut bi kaafirin di xéeféer laan na nafsa ndax bakkan xalabatu not na ko ala shawatin ci bànneex boobu waa ma shaddu zunnaar waaye takk zunnaar mu di seen tërbe ak seen mandarga yi nga xam ne ñoom rek ñoo koy jëfandikoo falay sa nekkut fii si moom ay shawatin benn bànneex isan kon man shaddu ku ko takk raak foofu moom mustaxifun aji oyof falla bi diinil islaam ci diinil islaam takoye fel islam rek wo mum kafir ne verle lu am solo ngi ni ma ne borom xam-xam yi tudd nañ ay jëf yoo xam ne ku ko def xéeféer nga bokk na ci tagg takk mandarga yi nga xam ne xéeféer rek koy takk loolu mandarga xéeféer la waaye du jëmmi xéeféer waaye kuñ gis nga takk ko rek dañuy dañuy dañ naan xéeféer nga ndax dañuy jàpp ne da ngaa xoyofal lislaam rek takk mandarga xéeféer amul benn bànneex bu ci nekk bu doon bànneexam ci ñu ne bànneex boobu moo tax nga takk ko kon su boobaa dégg nga duñ la jàppee weer ndax sa bakk na la not naan sàngara njaaloo yàlla haye nit a koy def gaa mais duñ ko jàppee ko yefal lislaam dañuy jàpp ne bakkanam a ko not rek tax mu dugg ci loolu waaye takk naar moom benn bànneex nekku ci ku ko def da ngaa woyofal lislaam te ko woyofal lislaam xéeféer nga bàyyi leen xel li bari na yoo xam ne tey nit ñaan koy def suñu jamono ji xoyofal lislaam a tax te bu ñu xoyofalee lislaam rek di dugg ci kéeféer danaa joxe benn tënk nag imaam Malik wax na ne ku jàng njabar xéeféer la jàng njabar sax moom mën nañoo wax ne booy njabar mën naa am bànneexam ci biir ndax dañ ci am xaalis waaye teewul rek maarik ne ku jàng njabar xéeféer la borom xam-xam yi ngir mi ñi ne Malik namul ci ne ku jàng njabar rek xéeféer nga waaye ku jàng njabar ngir jëfee ko kooku ndax kuy jàng njabar ngir jëfee ko xel dana njort njort bu dëgër ne kii def koo daganal njort bu dëgër googu ñu am ci ne kii def koo daganal ndax bu ko daganul toon du ko jàng di ko jëfee loolu dana wane ne kéeféer la xam nga boobu sax xoyof na lool mënoon nañ cee xëccoo boobu moo gën a xoyof bii may wax moo gën a fés muy ab doomam julit dem ci xéeféer di seeg moom xam nga ne boobu moo gën a fés ndax lu tax ma ne moo gën a fés ndax jàng ak njabar boo ko defee ba pare dem di ko jëfee mën nañoo wax sax ne xaalis la si tax a dugg waaye daganuloo ko xoyo faloo lislaam mais teewul rek maa ne kooku xéeféer la laa wax ndax dégg nga jàpp ne dag ku ko daganal rek mooy dem di ko jàng di ko jëfee kii nag dem seeg xeefeer te muy doomu jullit bu jigéen ñu bëri nga koy def jigéen ñu bëri ñu koy def dañoo tegul lislaam rek te buñ tegul lislaam fenn rek dugg ci gaal ak kéefeer dégg nga ma kenn xeefeer la nag waaye loolu moom jikko xeefeer la laa wax yow jigéen di nga xam ne yaa ngi seeg xeefeer su fekkee jàpp nga ne seeg xeefeer daganul looy dem ñi di ko takk boo nangoo ñu takk la rek maye la yow da jàpp ne takk googu dagan na teegaa dem rek di njaaloog moom waaye nga dem bind see contrat ngeen xool nii xéeféer yi takkee nga ànd ak ñoom ci takk googu ba nga jëfandikoo takk ba pare door koo jox sa bopp mooy wane na yow xel dana njott njott gu dëgër na yow da ngaa daganal seen ak takk googu dangaa daganal sëy ñoom te ku ne xam na ne ñoom daganul soo daganalee loolu rek da ngay dugg ci kéeféer kon na ko jigéen ñi moytu laa wax dégg nga masala mu jara seetlu la nag maanaam li ma bëgg wax foofu mooy lépp li nga xam ne ne dañ ci njorte ne nit kii dafa daganal yàlla xaraamaloon dégg nga rek dañ ci xiisal ci waaja dégg nga dégg nga dañ koy xiisal ci waaja rekk konte ko comme kéeféer de ngir dawloo ko nit ñi dañ naan lii xéeféer la bu fekkee ne yow daganaloo ko nag doo nekk kéeféer waaye saa yoo ko daganalee dangay ngay da nekk xéeféer kon mboolem mooy yàlla yi loo ci daganal rek di kéeféer nañ ko moyt bokk it ci liy def nit xeeféer mu ne man julit laa waaye duma pratiquer l'islam kooku xoyefal l'islam la xam ngeen ne xoyefal l'islam péere ngoog julit laa waaye pratique wu ma noo nekkee julit su fekkoon ne l'islam toll na fenn sa xol dang ko jëfee waaye julit laa waaye li l'islam santaan yëpp def ma ci dara kooku moo ko xeeféer ak abou talib gi benn la rek kooku ak xeeféer la dégg nga ndax dafa xoyefal l'islam de ànd ak sax ne Ahmad ibn Hanbal ba am na ñenn ci borom xam-xam yi ne julli moom boo ko bàyyee rek xëy nga far rawatina ku bàyyi julli bàyyi lislaam lim santaane lépp na julli la waaye du ma pratiqué xam ngeen ne kooku xoyofal na lislaam te ku xoyofal lislaam xéeféer la yéen jigéen ñi bu leen di xoyofal santaane yàlla yi naan dara nekkut ci yàlla dafa a lii nga ne a ah, waaye lii kat dara nekkut ci da ngeen compliqué rek yéen jàngkat yi yaa ngi dugal sa ci kéeféer téye ko ko bi ci gën a bon nag wala bokk na ci gën a bon jigéen ab jullit dem di see kéeféer ba pare nag dem di ko takk ci seen takk ya yow kay dem xam nga ne takk geeg ñàkk takk ñoo yem demal njaalo moom rek ndax sëy bi ngay sëy njaalo la baaxut waaye nangu seen takk ga ba pare loolu masinatu la barabu njott la na yow da ngaa daganal loolu te bu fekkee da nga koo daganal rek xeefeer la de moo tax loolu lu jege xeefeer la yu mel noonu nag borom xam-xam yi dañ ko def rek ne ñu yéeféer la ngir dawloo ko nit ñi balaa ñuy dugg ci kàmbag yéeféer ànd ne nag ñoom ñëpp xam nañ ne bu dee ca xol ba daganuroo ko rek xooye fa loolu islaam su boobaa du la tax a nekk yéeféer waaye loolu lañ caate ngir dawloo ko de wakul waaye kufri mboolem xaaji yéeféer yi man laqee ku dajeeg laa yàlla tabaaraka ba nii wa taala kawe na bi waaye din ci benn minaar ci moom foofu moom xaalidun aji bel la mu fi naari mboolem xeeti xéeféer yi ñu wax yépp ku ci dajeeg yàlla ci benn xeet ci xeeti xéeféer yi safara nga jem te boo duggee safara dootoo fa génnati bay laa yawmi diin yàlla incha allah musal lenn laa ndax yàlla laa yaxfir du jéggale an yusraka bañ bokkaale bii ci moom wa yaxfir dana mu jéggale maa doona daalik du dul bokkaale li ma ne saaw ñeel ku ko soob kon nañ mooy toye veer buur nañ ne la dina nga xam ne <clears throat> kafaroo wet nañu yàlla كابي جال كابو جال وابي لهب أقابو لهب ونعوهما أجمل نيوم من الكفار تيفري سواء يمون عليهم تنيوم أنزرتم وانغرين أم لم تمزرون ولا والو لين لا يؤمنون دنجم لعلم الله إنه قمك يالله تبارك برني وتعالى كوانا منهم تنيوم ذلك لولو كن فلا تتمع بوليا كار فيما نمسن <clears throat> buur nañ xeefeer yi ni ki abu jahlin ak abu lahab ak mboolem xeefeer waat leen <clears throat> ak ñàkk leen waat moo yem si ñoom duñ gëm ba mukk ndax yàlla xam na ne ñii duñ gëm te loolu la dogal si ñoom kon bul yaakaar yow yonent bi ci ñu gëm la <clears throat> gëm yàlla koy dogal ci xolu jaam bu ko neex bu doon xalaat rek mooy tax a gëm ñëpp gëm ndax kawteef yi du jeex waaye yàllaay gëm loo ko ko neex yàlla wax na ne xefeer eh, yi bu ñu leen yóbboon alaxira bañ jàkkaarloog lépp lu nekk ci alaxira ci mbugal yàlla delloo leen ci àddina sax ñu delluwaat ci kéefeer xam ngeen ne <clears throat> loolu mooy wane ne kawteef du tax a gëm buñ leen ubbi loon bunte asamaan yi wan leen kawteef yëpp ñu ne dañ ñoo njabar rek loolu la ñuy waxaat kon kawteef taxut a gëm kenn de <clears throat> axbara xibaar na làqu yàlla tabaraka ba niyo wa taala kawe na nabiyoo yonentoom ne ko ana awlaay kufaar naka xéeféer yi laa yuminoon duñ gëm abadan ba faw de yàlla wax na yonent bi ne ko xéeféer gëm ba faw sawaawun wa yemoo la alim ci ñoom inzaaru nabi waar ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax damu insaar yi ak ñàkk waareem falaa yuminoon duñ gëm de yonent bi waar leen ak mu ñàkk leen waar mooy xam ci xéeféer yi ndax duñ lam yaqul yàlla waxut ne sawaaun way yemoon alayka ci yow yonent bi anzartum ndax waar nga leen am lam tunzirum wala waaroo leen yàlla waxul yonent bi ne ko yow nga waaree nga ñàkk waaree mu yem ci yow parce que duñ gëm déedéet daf na ko nga waar leen ak nga ñàkk leen waar mu yem ci ñoom duñ gëm waaye fay na inzaar naka waare moom wax demul inzaar ak ñàkk waare lay saa nekkuñ sa waan di wa yemoo fi àq nabi ci àq yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de yonent bi waare ak ñàkk waare xemul ci ñoom foofu moom waare yajibu dana war alayhi si yonent bi wala boog foofu wali am ba am yajibu dana war alayhi si a bi tabliixu jottali fen balaxa bu jottalee sawaan way yem wala man amana ku gëmu man yumin ak ku gëmut foofu moom ku ñuy de yonent moom dafa war a waare su waaree nag ku gëm ku gëmut ku topp ak ku toppul yëpp moom wàcc na yàlla dana ko fay waaye xéeféer yi ñoom waar leen a ñàkk leen waar duñ gëm lii dana la jàngal yow mi dégg koo xam ne nii ma ngay wax ak li yàlla bëgg ak yonent bi bëgg nga naan ko noppalal sa bopp ñii nga wax leen ak ñàkk leen a wax ci yam mënoo changé si ñoom dara ko li ngay wax amul njëriñ ñu koy am na njëriñ de ndax moom xam na ne wax rek ko war na wax bu waxee na ku gëm baax na ku gëmut baax na ku topp baax na ku topput baax na yoonam nekkut ci ndax yàlla mooy toppaloo ku ko neex de waaye nag moom jottalee ko war na jottali kon diw xam nga ne mënoo changé si moom dara wala mbooloo sàngam mënoo changé ci ñoom dara ñoom nañ mel mel nañ ko kon bu noppalal sa bopp bul wax wax ji amul njariñ loolu waxi ku xamul la wax waaye ku xam daal danaan ñoom de wax ak ñoom ak nga wax ak ñoom ayam duñ soppeeku waaye nag yow waxal rek ndax waxala war de rawatina nag ba nga xamee ne wax sax mën na am kum soppi te yow xamoo ko kon yéen borom xam-xam yi wax wax leen te tax. bu dara soppi seen mbir lépp lu ngeen gis lu ngeen war a wax wax leen te yàlla rek tax laa wax su ngeen paree ngeen noppi wax leen te yàlla tax su ngeen paree ngeen noppi yàlla dana leen dimbale bu leen dara soppi walaa walakin al kufaara waaye naa kee xeeféer yi alladina ñi nga xam ne laa yuminoon duñ gëm sawaawun na si ñoom inzaaru nabi waar waar ak yonent bi wax damu inzaari ak ñàkk waare xeeféer yi nga xam ne waruñoo gëm moom waare gi yonent bi ñàkk waare mooy am si ñoom foofu ñoom laay ñoom duñ gëm abadan ba fawre àlla ma xamal naa laaw yàlla nabi yoo yonent bi muqaddaman ca commencement anaaw laay ne gaa ñi laay ñoom duñ gëm li yàqtaa ngir mu dagg moom yonent bi tamaamu yaakaaram fii maanim seen gëm si commencement woote gi rek ci la yàlla xamal yonent bi ne ko ñii moom duñ gëm ngir mu dagg yaakaaram ci seen ak gëm nga xam ne buy waaree dafay waare te yàlla tax rek waaye xam na ne duñ gëmati loolu yàlla defal na ko yonent bi ngir ak màggaayam ak fooraayam moo tax yàlla teel koo noppal moom falaa yaqoo ngir bu mu tàbbiloo ñeel ko mislu ma waqa comme la nga xam ne tàbbi na li nu ñeel nuu alayhi yàlla nekk ci moom asalaamu jàmm yàlla dafa bañ li xewoon ci nu xew ci yonent bi ndax yonentu soppe soppeela soppi kenn du ko sonal baada maa makk sa gannaaw bu mu saxee moom nuu alfan junni at illaa xam si naa man lu may juróom fukki at aw xaa si la wax yu ilay jëm si moom ne ko innoo naka li am ba lan yu mina du gëm min xaw mi ko saw nit illaa man xar aamana lu mooy ña gëmoon nañ baara mu xaasaati shadaayit gannaaw mum jàkka jànkuwante ay tat-tat nu jànkuwante nag ay jafe-jafe junniyaat ju manque juróom fukki at yàlla door ko wax ne ko ñi la gëm nii rek ñoo lay gëm kenn door si doole kooti mu door a dagg yaakaaram waaye axbarahu xibaar na ko laa yàlla tabaraka bëri wa taala kawane hada ci lii moom nu gannaaw bu mu jànkuwanteeg coona la ko yàlla doore xibaar na ko ñii duñ gëm noppalal sa bopp mu daal di noppalu nga xam ne li muy wax yàlla rek tax waaye xol moom xam na ne dootuñ gëmati waaw fan nabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muqaddaman ci commencement mbiram rek axbaru ci la ko xibaar alxaq yàlla ne ko naaw laay nekk xéeféer yi laay duñ gëm leela yetuma ngir bu mu yaakaar fii maanim seen gëm de mu teel a noppal boppam ndax soppe dañ koy noppal wanu nu la ma àllamu bu mu ko xamalee àllah yàlla tabaraka benn yiw wa taala kawe na an na xaw moo ne aw nitam laa yum noonu duñ gëm daa ñaan naa la yim ci ñoom bi la xalaaki ci alkande <clears throat> nu yàlla def na ko saw nit duñ gëm mu ne yàlla kon bul fi bàyyati kenn xarak leen ñoom ñàpp yàlla xarak leen yàlla xarak nitam ndax ñaanam wa nabi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la ma alima ba mu xamee anna qawmuna aw nitam laa yuminoon duñ gëm maa daa ñaan lu halkaane alayhim ci ñoom ñaan lu leen halkaane de laa noo ndax moom nabiyu rahmati yonentu biir maa gara yàlla def na ko maar sa naa ko yónnuñ lay laa rahmatan lu may nga di biir maa ne naa mi ne ñeel mi ndeefi allahu yàlla tabaraka bari ni wa taala kawe na asbata saxal na fi haaji aaya ci bile aaya ana inzaarahum ne waar xeefeer yi waa dama inzaarim ak ñàkk leen a waar sawaan wa yem wala alayhim ci ñoom ndeke ñoo ko njëkk a waxal seen bopp ndax yàlla la la ngay waxal sa bopp rek la lay fayee moom la nga njort sa bopp daal loolu la wal ku faare xéeféri sa saxal lañ ala anfusim seen bopp fi mu xaatabatim ca wax ga ñuy wax ak li nabiim ñeel seen yonantu huut xéeféer yi ba ñuy wax ak seen seenam yonantu moo di huut dañoo wax ne sawaan wa yem wala alay naa si ñun avance ta ndax waar nga am lam takku wala nekkoo menel waaye si ne ci waare waarekat de ñu ne ko xemoona si ñun nga waar ñu wala nga ñàkk ñoo waar loolu la ñu waxoon ci eh, eh, yàlla Huud duñ gëm yàlla fay leen rek de nee moo ci ñoom waar leen ak ñàkk leen ak waar duñ gëm waxal bu la neexee nga wax bu neexee nga noppi ñun duñ la topp loolu waxa féeféer la nit ki daal bu dee lu muy wax dëgg la rek gëmal toppal ak fu mu mën a jugee ndax ci yàlla rek la jugee kiraay gu bëri rek moo tax nga yaakaar ne ci keneen la jugee waaye wax yëpp ci yàlla la jugee gëmal rek de bañ waxee ne nga waat ñoo nga ñàkk ñee waat duñ gëm bañ ko waxee yonent yàlla Huud yàlla fay leen ko ci alquran di nga xam ne mooy dajale téere yëpp ne waat leen ak ñàkk leen ak ñoom xéeféeri mooy am duñ gëm de falihaza li moo tax nag dégg nga juwisu fayef nañ leen ko fi wala boog juusu fayef nañ leen juusu fayef nañ leen fi àqati ci àlaxira lamma udxiloo bañ leen dugalee annaara safara na leen isbiru muñ leen aw laa tasbiru wala ngeen bañ a muñ sawaan wa yemoon aleykum ci yéen loolu it ñoo ko wax ñoom it ñoom it ko waxal seen bopp ndax bañ deme xam nga dañuy wax ci àddina ne si ñun waar ñu ak waar duñ gëm yàlla fay leen ko ci àddina ne na si yéen waar leen ak ñàkk leen waar du ngeen gëm bañ demee àllaaxira it ñoom ñoo waxal seen bopp ndax dañ ne waaw nañ jëriñ ñi la leen dugal. aljana mooy muñ kon ñun nañ muñ rek ñu muñ junne at mbugaram sawara jariñu leen dara ñu ne nañ jooy ñoom jooy yu bari moo leen dugaloon aljana ñoom ñu jooy junne at jariñu leen dara ñu ne ah sawaun alayna ajza'na am sabarna ma lana min ma'isin ma lana min mahisin ñun kay xamoon na ñun jooy nañ wala muñ nañ duñ génn duñ génn sawara bañ waxee loolu yàlla fay leen ko ne isbiru aw laa tasbiru sawaan aleykum muñ leen wala ngeen bañ a muñ xewoon na ci yéen de waaw la leen yàlla wax de lamaa udxuluu naara bañ leen dugalee safara ñee ne isbiru muñ leen aw laa tasbiru wala ngeen bañ a muñ sawaan way yemoon aleykum ci yéen kama qaala comme nu mu waxee allah yàlla ne innoo naka li am baam sawaan way yemoon alim ci ñoom inzaarum waar leen waa dama insaarim ak ñàkk leen a waar allah moom xamal na leen fi naari safara anna sabrum ne seen muñ wax damu sabri wax dama sabrim ak seen ñàkk muñ sawaawoon wa yemoo lañ fekk wax nañ ñoom bi anfusihim seen bopp ne sawaawoon wa yemoo lañ naas ñun ajazina ndax jàq nañ ba jooy am sabar naa wala muñ nañu maala naa déet ñu ñeel min maxiisin ci barab bu ñuy génnee xaaloo wax nañ loolu li ndax ñoom xaaloo ñoo waxoon ci àdduna ne wa yemoo lañ naas ñun ndax waar nga am lam takun wala nekkoo meen waaye dina ci way waare yi maanaam ñoo wax yonent yi yonent yàlla ne waar ñeeg ñàkk ne waar <clears throat> mooyem duñ gëm yàlla <clears throat> faye leen ko ca safara ñu ne ñun kay ñu jàq jooy ak ñu muñ mooyem duñ génn waaye lañ wax yonent yàlla huut ne waar ñeeg ñàkk ñoo waar mooyem duñ gëm yàlla fay ne ko ci àdduna ñoom it ne leen yéen waar leen ak ñàkk leen a waar yen hem du ngeen gëm lañ waxit te safara ne muñ ak jàqayam duñ génn sawara yàlla fay na leen ko foofu na leen muñ leen wala ngeen baña a muñ mooy am ci yéen du ngeen génn safara yàlla ñu yàlla musal seen ab xaal ñoom yéeféeri <coughs> xatama muur naa laaw yàlla qulubim seen xol ay taba muur naa lehaa ci xol yi wastu wastaw sa ko falaay du xulaa dugu dugu mukk xayran yiw waala samim muur seen seen bërëb bi ay mawaadi am bëri bu nopp yi yàlla muur na ko fala yamtafoon duñ jëriñu bi ma yes moo na si la ñuy dégg min làq ci dëgg de wala abu saarim nekk na seen i bët gishaawatun ab muuraay ay xitaawun muuraay fala yubsiroona duñ gis alàq dëgg ndax duñ ko nangu de kon kay ñu ngi mel ni gisuñ ko wala um ñeel na leen ñoom yéeféeri azaabun bugal azimun bi aji dëgër azimun bi aji jokkaloo waaw azimun bi aji màgg de xawiyun baaji dëgër daay mun baaji sax la leen yàlla di mbugal leen woowa moom mbugal loolu annaaru moo sawara yàlla nee na muur na xolu ba gëm yàlla du ci dugg lu baax du ci dugg muur seen noppi ba duñ dégg dëgg ndax duñ ko jariñoo muur seen bëdi ba duñ gis dëgg ndax duñ ko topp yàlla nee na xeeféer yooyu seen ak mbugal seen ak mooy mbugal mu màgg mu dëgër mu jokkaloo <coughs> yàlla incha allah musal alazimu aji màgg di dul mooy safaanu lu xeebu kama anal kabiri comme li nga xamee ne mag di dul saxiri mooy safaanu ndaw wala azimu lu màgg nag azamu moo gën a màgg minal kabiri ca lu mag xam nga mag mën naa màgg ba pare te xeebu dégg nga waaye lu màgg moom mënul xeebu ba mukk mënul ndawit ndawit mën naa nekk ndaw ba pare te màgg kon lu màgg moo gën a lu màggee de adana adaabu mbugal bii nag mbugal mu màgg lay doon adaabun mbugal la shadidun bu tat ashaddu bu gën a tar min kulli adaabin ci mbugal mu ne hada lii mooy li nga xam ne ñëw na fi àqil kufaari ci àqi na xeeféer yi yàlla nañ yàlla musal seen xaal musal ñi ci xaalu naafiq yi ak qadari wa miqdaari azim Muhammad